kii du nit qaala alkaafiruuna inna haadaa la saaxirun mubiin inna rabbakum allah inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamaawaati walarda fi sittati ayyaamin summa stawaa ala alarshi yudabbiru alamra maa min shafiicin illa min bacdi idnih ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إن أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب xaaral ma jëlaale bii nga avancé ma ko mu nga ca kanam boo déggatul wolof boo nee xul mooy neel moo tax yàlla na ko yàlla yërëm doon te jullit la Xadafi 1981 bi may nekk Banjul 44 Haddington Street imaam imaam bii fi ñëwoon tey boobu maa ngi kër baayam Alaaji Aliou Ka muy imaam bi ñëwoon fii ci suñ gàmm gi imaam Thierno Ka boobu moom mu nga ci Saudiya di jàng bi ku koy Samba Sagne di e, coup d'état Daouda Diawara boobu foofu la mu fekk yàlla def ku koy fii la faatoo sax moom ku koy daw yàlla def na ci mbaaxam boobu la Xadafi bindoon livre bu ñuy wax kitaabul ahdar livre vert la ko tuddee woon yaakaar naa ñu bari xam nañ kitaabu la ko tuddee woon livre vert ñu may ma ci benn nusxa ma di ko yër gis mu bind ci ne xol yi ci alquran yëpp dañ ko war a dindi ma ne ah kii beew na di te nee na boroom xam-xam la muy layal nag lu tax ñu war koo dindi ci wax ji moo tax biñ ko reyee rek bettu ma li ko dal mujj dundam ah yàlla da lay bàyyi rek ngay cëppi cëppi waaye fa muy mujj ak yow <laughs> ñax du fa sax mukk moo tax it ñax saxu fa fañ ko suul ca désert ba ñax du fa sax mukk <laughs> te kenn xamul fuñ ko suul kenn xamut fuñ ko suul dañ ko yóbbu ba ci diggi désert bi àll guddi kenn yëgul ñu suul ko maasale dem seen yoon kenn mënu laa wax ne fii lañ ko suul amut moo tax kuy def defal lu baax nguur dafay jeex moom ni mu ko layeele mu ne euh, ndax yonent bi la yàlla doon waxal te yonent bi nekkatu fi ma ne ko benn ñoom téem rek mooy yonent baa ngi fi mosu fee jóg te du fi jóg ilal abad ñi koy gis a koy gis ñi koy yëg a ngi koy yëg ñi ko gisee it ñu ngi koy gis ci zahir ndax zahir bi buñ ne allahu akbar bi imam di <laughs> taal di nodd léegi bàyyi ko fi tudd dawa ashhadu an sëñ Tuuba wala da nga ne alaaji anna alaaji nga fi wax ashhadu anna alaaji Malik àddina bi li ñuy ñeme ñeme yàlla dégg goo fi ashhadu anna kenn anna muhammadan rek waaw kooku kon jóg na fi jógu fi zahir yan mu ngi fi ashhadu anna muhammadan rasulullahi kon rasulullahi ngi fi beneen bi ci des buñ la wooyee ba nga ñëw di julli looy booy sëlmal lay wax atahiyaatu lillahi adakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi asalaamu aleyka asalaamu aleyka moom booy boo koy wax sax di nga xam ne ki ngay waxal a ngi nii toog ataxiyaatu lillaahi azakiyaatu lillaahi atayibaatu salawaatu lillaahi nga wàcc si ci suuf nag ne asalaamu aleyka yaa tax ma xam kooku waaw julli sax booy julli danga war a xam sensu julli ci ngay yëg boo xamul sensu julli doo yëg sa roox balaa mooy yëg da xam sensu julli étape bu nekk ban symbole la am nga indi symbole boobu ci sa xel ànd ak moom dem ah boobu ngay indi ci sa xel ànd ak moom dem booy booy taayi loolu ngay indi dangay ngay yëg yaa ngi ci sa kanamu borom waaye ku la fa yóbbu dem nga Dakar ban oto la yóbbu wala dem nga màkk avion nga dugg wala bato waaw ah, kay buñ fàtte li la yóbbu boo ko fàttee booy ñibbisiwaat di nga am problème ah. akay ah, moo tax ataxiyaatu lillaahi azaakiyaatu lillaahi atayibaatu salawaatu lillaahi waaye nag assalaamu aleyka yow mii rasulullahi yaa tax ma xam kooku yàlla ne xoolal yàlla di wax yow ne la ban kan kan ngay wax ci ñooñu assalaamu aleyka yónnent yëpp ay teew moo tax ba muy rañaan mu dajale yónnent yëpp ca baytil maqdis comme cent vingt quatre mille yonente teew nag loolu ngay teewal ci sa xol yow aha da ngay teewal ne ne yonent bi demee woon isra wal miraaj yàlla dajaleel ko cent vingt quatre mille yonent yëpp ca baytil maqdis booy taayee da naan maa ngi jàkkaarloog cent vingt quatre mille yëpp waaw fas yéene départ atahiyaatu lillahi ca malawul aala azakiyaatu lillahi ca malawul aala tayibaatu salawaatu lillahi ci waaw waaw yegg yegg nga tayibaatu salawaatu salawaatu jee tax nga yegg fële amuloon ñu salawaatu yaa ngi ñetti étape la atahiyaatu lillahi mooy départ nga azakiyaatu lillahi yaa nga sidratul muntaha ah at tayibaatu salawaatu lillahi yaa ngi ci arsh yàlla ne la rassemblé naa la fii ni ma rassemblé leen yonent yëpp yonent bi ca ca baytul maqdis tey yaa ngi ko am fii nga ne asalaamu aleyka cent vingt quatre di la xool ne kan ci ñun yàlla ne la kan la ci ñii nga ne ayyuhan nabiyu foofu moom rekk fa tudd nabi ña des ñëpp rasul lañ tudd ña des ñëpp rasul lañ tudd xam nga lu tax ñu tudd rasul dem moom xam nga lu tax mu tudd nabi wa najmi iza hawa <laughs> ah Xaaji Mansuur waaw ah, kañ wa najmi iza hawa ah moo tax moom moom rek ka fay nabi maa daaxal basar wa maa taxa moom rek a fay nabi moo tax nga ne assalaamu alayka yàlla ne la kan ci ñoom ak orma bi ko yàlla jox yaa ayyuhal mudassir yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhan nabi moo tax nga joxoñ ko foofa nag sa baaraam bi moo tax nga di ko tàllal boo yeggee ca kaja rek boo tàllal bu njëkk bi nii boo koy tàllal sax dañ bëgg nga def nii bii ne coow ci yàlla mooy yàlla rek kay kenn mooy moo tax bii bii ngay tàll bii boo gisee ñaari façon nga koy def bu la neexee bu dee sëñ moor Diop nag bii la tànn moom ku seetlu sëñ moor ak taalibeem yépp bu ñuy taaya nii la ñuy taaya dinaa la wax lu tax bu la neexee nga ne nii bay di ñëwal fii ah nii banque ñett yëpp tàllal benn bi bii la alaaji Malick daan def nag alaaji ab doo ko wax ci zawiya bi ñëpp a ngi toog yee dégg ngeen dégg ngeen kaset bi mu ne bu bu waxtu jot mu ne alaaji Malick nii la ko daan defee bu tisbaar jotee majeng xari jeng ak daraja ju mën a am noonu la koy defee Basirou Diagne doonte mooy grand sëriñ de Dakar noonu la koy defee dégg ngeen ko xanaa ci kaset bi waaw ah, kañ boobu maa ngi toog kenn nettaliwu ma boole ci di enregistré rek sama ma magnétophone dégg naa sax ñu naan doo gis kenn du ko gis ci kaset yi mosuma jege Alaaji Abdoul Aziz bu wootee ci ëppaleur yi laa daan dem jël sama magnétophone di enregistré kaset yëpp a ngeeg man magnétophone laa yoroon waxuma magnétophone yu ndaw yi yu mag yu mag yi laa laa daan yor di enregistré ku weddi nga dem laaj Malick Sall bii ci pikin ñoo daan ànd ñii xam nañ ko Malick Sall ñii ñëpp xam nañ ko mu ngi fi yor daara fii Pikine def na ci taalif def na ci taalif Malick Sall ci woo wuyu yi ma daan ànd ak gaa yi di wuyu ji El Hadj Aziz woote yi mu daan woote yëpp fu ñu daan dem may bogo bogo gaa yëpp ni sëñ Abdou woote na barab sàngam am na bés sax dama yëguma woote bi dama ñëw ba ci Thierno Yaxya li di ko ziyaar mu ne ma baaba loo fiy def. ma ne ko lu xew mu ne may yàlla may woon ab Aziz a nga déparé Dakar jëm si ci zawiya bi dawal càm na yaxyaa li dawal yàlla ma koy woon fii ma toog ab dooma mëla déparé Dakar jëm si déparé Tiwaawan jëm si Dakar ci zawiya bi dafay waxtaan dawal boo nga déglul ma lu muy wax càm na yaxyaa li Malik bii la tànnoon waaye comme bii laa njëkkee woon sëñ Mor mii lay bii la jël yëpp boo ci mën baax na ñii boo tàllalee nii sa ñaari baaraam yi banque ñett yi alaaji Malick daawu ko yëngal alaaji ab doy wax de bu la neexee yëngal waaye fii booy yëngal ñaare rek dañu xam ne yeggagoo ci yàlla cim boo gisee kuy def nii rek yeggagul fen foo fekk kuy def ni yeggagut bu yeggee ba ko xam nga bii lan la yaa ngi dóor bolde seytaani pour dem waaw yónnent bee ko mu ne booy yëngal baaraam bi bolde la bu ñuy dóor seytaani pour nga mën a dem yow boo gisatul seytaane cim li ci am na Bachir di wax boo gisatul seytaane looy yëngal sa baaraam boo nee nii nag sa baaraam mooy dégage naa ñëpp te kenn ñemewu la taxaw ci yoon lu dut fiir naa la ñu ne foo jëm mu ne ci borom bi subhanahu wa taala moom kotta fi nekk kott dong rek amul ñaar mooy nii mooy nii boog nii moom kott dong rek mooy nii yàlla kott dong rek amul ñaareel boo nee nii mooy mook rasulullahi <laughs> maa ngi dem de waaye rasulullahi laa àndal yàllaa fi ne yonent bee ñu ko wan lii lay firi yàllaa fi ne di kenn waaye yonent bee ñu ko wan te xamuma man kii la xam in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah waaye wa yaxfir lakum dunubakum mhm. waaw foofu la taxaw boo nee nii rek mooy rasulullahi la ah Aboubacar Ousmane Ali ñu ngi ci ron yonent bi <laughs> aha boo mooy rasulullahi Aboubacar Ousmane Ali ñu ngi ci ron yonent bi mooy allahu defal ni jeex na allahu buñ juutal la dégg nga xam ne julli yëpp la allahu buñ juutal la lii mooy allahu gisoo alif laam laam haza xeer jeex na mooy allahu moo tax nga gis Alaaji Abdou Aziz daan def nii baaraam foo ko gis mu def nii rek bàyyil bu nee nii rek yéeg na bu yàgg foo gis Alaaji Abdou ne nii baaraam bi nekkatu fi jëmm jee fi ne waaye moom newatu fi foo ko gis nag mu toog ne nii mu ngi dee ak léegi yonent bi immédiatement fi mu toog. mu ngi deeyaale ak yonent bi seetlu rek photo bi nga gis mu ne nii yàpp foo ko gis mu ne nii rek mu ngi deeyaale ak yonent bi lii li ma ci waxtaan ak Thierno Bachir xaw ma nu mu toll mu wax ma ramzu yi <laughs> Thierno Seydou Nourou daan def moom foo ko gis mu ne nii mu ngi deeyaale ak yonent bi ci ci mbir yàlla la ñuy wax ñoom ñaar nii mooy Allahu dégg nga mu niroog téléphone hmm? booy bàyyi muy téléphone <laughs> ah sooy bàyyi muy téléphone eh nang ma woo ah Abdoul nang ma woo ngoon du noonu la ko gars di defee Aliou on s'appelle ah, <laughs> ah? ok ah, booy bàyyi rek muy téléphone mu def nii boo ko gisee mu ne nii rek dëkk bi lakk na boo ko gisee mu ne nii nag dégagé na ñëpp yegg na bu yàgg foofu lu bëgg yàlla def ko xalaat rek yàlla def ko moo ko yóbbu ba yonent bi juddoo moom bu sexoon yummil sababata du loolu la Maodo wax فاكرم بمن أسرى بالله ليلة باقترق سبعة باق الأواليا سيخ سيد الحاج مالك نانا ومن أمر المولى خلقا عليه كذي الوادي هذا هو سواه مصيل سيخ سيد الحاج مالك نانا يمتي محمد wa ma amaral mawla xalqa naxlihi ka zil waadi haada siwaahu masiilu alxaaji Mansuur nee na yant yàlla Muhammadu bi mawlidikal iiwaanu saarat munakkasan walil maa i xawrun baada maa kaa ba nee na bi zahat wa tazayyanat wa daana lil arbaabil uqulul amaaniya eh, ndekete daal am na jinne yu ne ci biir ma ne ndekete gars yi dañuy làqatu eh? ah, loolu eh, julli moo tax ay ramz la ramz yooyu yëpp alquran moo ñu ko jàngal wa allama al aadama asmaa kullaha summa aradahum ala al malaikati fa qaala anbi'uuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqina asmaa yooyu ay tur la tur yooyu ay symbole la woon waaye du tur yu yàlla bind symbole yu mu ko tegaloon la ba noppi nag ramzu ya nekk ca malawul aala waaye mu gaaral ko jëfandiku yi moo tax tafsir yi tafasir yëpp indi jëfandiku yi waaye jëfandiku bi ne daa am tur sax wala déet lii la mu tudd du portable kuddu du kuddu la tudd kaas leket bool soble yooyu yëpp tur yooyu yëpp ci la bokk moo tax boo tàllalee sa baaraam banque yëpp mooy yàlla rekk a fi ne keneen newu fi mu symboliser it allahu mooy nii alif laam laam ha saqeer allahu alif bu njëkk bi mooy yàlla aliful ilahiya la laam bi mooy yonent bi beneen laam bi mooy seydina aboubacar seydina ousmane seydina ali moo tax xalifa yi am doole a xulafa u rachidina moo tax ñu am doole nga dugg ci biir loxo bi dugal ci biir loxo bi xam nga lii mooy biti loxo bi moo tax boo jàppee sa awra bu laalee tenq bi fii bu weex-weex bi lu mu ci laal rek sa njàpp toj na laal rek laal rek la wax ne xam nga laal amul benn bànneex xam nga lu tax da jàpp ba yegg set nga wecc yegg nga ci yàlla moo tax su ko laalee rek taachal na ko taache boobu la ci yàlla di bañ xam nga lu tax xoolal fii lan la du benn rëdd fi ne un lii lan la du huit ah dix-huit la xayyu gis ngeen ko xoolal ñun ñëpp ko am dafa am ñu leer la am ñu leer la wut fii un la lii ngay gis un la lii huit la ci chiffre arabe muy dix-huit muy xayu moo tax allahu alladi allahu laa illa huwa alxayu alqayumu alxayu moo nekk ci sa loxo ndeyjoor moo tax yàlla rek ay dundal ah ñu wol ci bu càmmoñ bi quatre-vingt-un la booleel ma dix-huit plus quatre-vingt-un bii alif la bii un e la bii huit la encore yàlla du yàlla du cuune du gis nga ko muy quatre vingt et un quatre vingt et un plus dix huit téyel ma micro bi da ngay def nii bu la neexee nga def nii yëpp symbole la waaye boo defee nii quatre vingt et un plus plus dix huit quatre vingt dix neuf muy asmaulahil husna ah <laughs> yàlla mu cuune wa fi anfusikum afala tubsirun yàlla ne xool ma ci sa biir maa ngi ci sa jëmm ji nga dima napp fenn ci asamaan yeeg lu kenn xamul maa ci sa biir jëmm ji xool ko am ñun ñëpp ko am dafa am ñu ko leer am ñu ko leer ñëpp ko am loxo ndeyjoor bi 18 moo ci nekk turu yàlla 18 turu yàlla ngi ci ca biir loxo ndeyjoor bi mooy tere tere yu sew yi ngay gis yëpp ay turu yàlla la ah waaw yow boo doon xool sa bopp rek yegg nga ci yàlla bu yàgg bu yàgg a yàgg moo tax yàlla ne la wa fii anfusikum afala tubsirun xoolal sa bopp nga gis ma xoolal sa bopp nga gis ma loolu la yàlla wax xoolal sa bopp nga gis ma boo nee nii am nga 18 turi yàlla boo nee nii am nga 81 turi yàlla xam nga lu tax 18 bi nekk fii luy dund moo man lu dundut moo tax 81 bi li muy rëy rëy 18 bee këpp doole ndax huwa alxayu laa yamutu abadan Hmm? nga ñëw fii muy quatre vingt et un quatre vingt et un garde day bari waaye ku mën du bari <laughs> ah garde day bari ay garde di corps day bari nu mu gën a baree ñu gën laa ragal ndax seytaan yi ci càmmoñ la nekkee moo tax ñu dóor fi quatre vingt et un garde ma ne pérateur nag nangu naa ko ku dem ku dem nag pérateural may naa la ko <laughs> waaye bu ëllëgee it mën naa la génneel cent dix mille yëpp ci benn loxo bi mën naa ki wax ba bër set bër bu set mën naa cee wax te li ma lay wax du bokk ak li ci moromam su ma ko weesoo mën naa ñëw ci sa dënn bi alam nashrah lakka sadrak li tax yàlla joxoñ yonent bi ne ko la laka sadrak waaw ah, laka sadrak yàlla dafa tagg yonent bi ci yëpp bopp bi bët yi alam najal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn waaw ah, moo tax boo amee fulla nag fa laqtahamal aqaba bu la kenn tee dem ci yàlla xoolal pakk yëpp nga dindi ko loolay fa laqtahamal aqaba waaw ah, xoolal pakk yëpp nga dindi ko mu ne yàlla luy pakk mu ne wa maa adraaka mal aqaba danga bëgg ma xamal la wala ndax danga xam lan mooy pakk yi lay gàllankoor ba noo ñëw ci man nga ne ko ankañ bëgg naa koo xam wa maa adraaka mal aqaba mu ne fakku raqaba goreelal jaam boo bëggee yegg si ci man ba jaam di am fakku raqaba aw itaamun toggal ceebu jën saraxe defaral misri joxe fa daqataha mal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw itaamun fii yawmin nag la wax ci bés bi zi masaxaba ñu ne ko koo koy jox mu ne aw yatiman ah njirim njirim joxal ma njirim bi nga xam ne ndeyam deena bàyyam deena xool ko ci man nga joxal ma ko za matraba ki amul lum lekk day matt ay loxoom aw miskinan walla ki nga xam ne amul dara za matraba ki amul lu ko taq ndax ñàkk aw miskinan za matraba lum ca teg summa kaana min alladina amanu mu ne soo ko defee nag bokk nga ci ñi gëm <laughs> Ah? Hmm? ah yàlla yàlla du cuune de yàlla lum def ci nit rek moo tax nit am doole soo soo soo melee yàlla bëgg rek sa lépp courant sa lépp mille volts la soo melee ni yàlla bëgg sa lëpp mille volts la moo tax man Mansour mi nga yëkkati xasidaam daan <laughs> daan wax ne ah, dañ maa posone nag dañ maa tooke booy nërëñ muy neex waaye booy bàyyi di dee loolu la alaaji Mansour daan wax booy nërëñ muy neex waaye booy bàyyi di dee mu ne ndax sama yaram yëpp dañ ko tooke hmm? moo tax garde day bari moo tax fii di quatre-vingt-un gis nga yii danga foog na yàlla par hasard la rek mu di la defal ay rëdd rëdd yii ah danga foog ne ay hasard la rek yàlla di la defal ay rëdd rëdd nii ci sa baaraam yi nii rek ngay xool muy ay rëdd rëdd doo ci jàng doo jàng ci rëdd tere yi lu muy jëriñ jàngal yii yëpp ay xam-xam la ah moo tax ñuy bëgg sa booy tasam nga def ko ci sa baaraam. 33 mooy jàlla jàlla jalaaluhu wa azza mooy 33 nga dóoraat jàlla muy 33 nga dóoraat muy 33 muy ñaata 99 <coughs> waaw yi ñëwaat na <laughs> ah waaw ah 99 yi ñëwaat na yàlla nag soxla naa cinquième nag yow tam nga ne laa ilaha la sharika lahu lahu lmulku lahu lhamdu laa ilaha illa allahu buur bu ñuy jaamu jaamu nga ñeey jaamu nga di jëriñ ka koy jaamu wala ñàkk gaa jaamu di lor ka ko ñàkk jaamu illa allahu ko dul yàlla waxdahu moom dong rekk kot laa sharika lahu duñ ko bokkaale kenn ndax amul kenn kuñ koy bokkaaleel muy dëgg kuñ ko bokkaaleel rek ay fen la lahul mulk moom rek la nguur ñeel wa lahul hamd moom rek la cant ñeel ndax moo ñu xamal liñ xam yuhyi mooy dundal wa yumiitu te mooy rey wa huwa moom moomu kat ala kulli shay'in mbir mu mën a doon ci def ko dindi xadirun ku ko attan la génneel ma waaw moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tidiane wax ne sama benn kawaru taalibe benn kawar mu ne soo ko xusoon teg ko ci balance jël junniy xutbu teg ko ci beneen balance mu ne sama benn kawaru taalibe boobu daaneel junni xutbu yi